muy bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku ñibbisig Serigne Touba fii ci Touba Serigne Modou Moustapha taxawu bis boobu tey ji ñu koy fàttaliku tax na bi ñu xëyee ñu ñëw fii ci jumaa ji fas yéene ànd ak yéen lépp loo xam dina fi tukkee jëm ci ziyaar yi ak tamit lu jëm ci njàngu alxuraan mi nga xam ne mooy am ci biir jumaa ji suñ ci jógee danañ ñëwaat ànd ak yéen xatmu bi ak lépp loo xam ne tukkee na fii ci biir jumaa ji jëm ci màggal gi nga xam ne ci lañ fàttaliku ñibbisig sëriñ bi fii ci Touba tey ji nga xam ne moo yemoo fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru Muharram di weeru Tamxarit yemoo ak le 19 septembre 2019 moom ni mu defoon bis aw jiwoom daa fàgg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 di ñaanal sëriñ Ahmadul Muxtaar mi nga xam ne moo nekk ci bopp njaboot Cheikh Mahamadul Moustapha ak njaboot gi yëpp ni nga ko waxee bis bii dafay bis bu rëy ci lislaam rawat na ci yoonu morit ndax ci la Cheikhul Xadim radiallahu anhu dellu dellusiwaat ci barab bi nga xam ne moom la gënoon a bëgg ci kaw suuf gannaaw bu mu sobee boroomam mu woowaat ko ca moom Euh, loolu nag di lu am solo Cheikh Mouhamadul Moustapha mi magoon ci njaboot gi ca waxtu woowa euh, ci gannaaw ay dénkaaneem ya mu ko dénk moom moo digle bis bii digle ko it digle wiin wu am solo woo xam ne moo dëppoo ak ni sëriñ bi daan defale boppam bis xam nga ne sëriñ bi ci gàmmo day wax ne taxsimuhu bi sunnati nañ koy fonk di ko wormaal waaye lépp luñ ciy def nay dëppoo ak sunna Cheikh Mouhamadul Moustapha <clears throat> fàttali loole ci bis bi soññee ko bu baax a baax daan digle saabu bis bi ak ku ko mën na nga fanaan si Touba waaye daan tànn ay kallaf yu man alquran ay kaang andi leen fii ci biir jumaa ji Euh, tasaare leen mu tàmbalee ca biir barab ba ci mi'rab bi ba ci koñ yi ca waxtu wa na jumaa ji demee woon ñaar fukk ak juróom-ñett kenn ku nekk wàccee ab kaamil euh, xasida yi tamit kasaalika ñooy ñaari sàlli sëriñ bi euh, lu mel ne jes bu muwaahi bu muxaddimaat ak miimiya moom it am ñu koy jàng bu de bu tànnee loolu ba noppi nag ne mbooloo mi nag tey jiidu bisub def loxoy neen lu waay mën na ko def ku mën a jàng alquran keneen jàng ko ku mën a jàng xasida ku mën a yor kurusam di tudd yàlla sax na ko def waaye ku nekk rek na nekk ci lu ko mat loolu nag moom la kilifa yi sàkku ñu dundalaat ko noonee nga xam ne noonu la ko sëriñ bi santaane woon tax bi mu jubee ñu waajal ko tànn ñaar fukki kaang ak juróom-ñett yoo xam ne ñëpp xam nañ leen ràññee seeni taxawaay yóbbu leen noonu ca biir jum ci biir euh, jumaa ji euh, ci jéem a dundalaat sunna sa na ko mu Mahamadul Moustapha daan defee kenn ku ci nekk tàmbali ab kaamil am na ci ñoo xam ne sax fii may wax ak yow àggal nañu ndax am nañu teel a agsi bi nga xam ne biñ jullee suba rek dañoo daal di daal seenub kaamil euh, àggal nañu am na ci it ñoo xaw a naaje ndax taw beek yoon wu xaw a jafe wi waaye ñëpp ña nga ca te incha allah jàpp nañ ne bala ñoo noddu tisbaar ñëpp danañ àggal bu ñu julee tisbaar ba noppi ndawi kilifa yi ñëw ñu dajee def xatmu bi dénkaane kàddu yi ñuy dénkaane. waaw ah, en euh, nit soo koy defal tey dàkk ak bëggam da koy dàkk ci lam gënoon a bëgg sëriñ bi alquran la gënoon a bëgg ndax alquran moom la yeneen sallallahu alayhi wa sallam wax ne fadlu kalamillahi ala dairil kalam ka fadlillahi ala xalqihi ni suñ borom tabaaraka wa taala bind mbindeef yi gën a mbindeef noonu la alquran di waxam di gën a wax yëpp eh, sëriñ bi am na tolluwaay ci ak dundam boo xam ne dafay wax ne lépp lu dul alquran suñu borom daf ko jënd ci moom rékki ci moom loola ba mu set ba bàyyi kook alquran kese eh, mu liggéeyal borom ci alquran liggéey boo xam ne taarix nett léeguñu keneen ku ko def digle ci it yiw yu baree baree bari njaboot gi xam loole dundal ko bu baax a baax ba tax lu dee si defal Serigne Touba alquran jiitu ca loolu moom rek moom la xel nangu loolu it la kilifa yi xam lii nag day ci jumaa ji di ab tàmbali waaye tey jii soo demee ci biir dëkk bi ci njabooti Cheikh Mouhamadul Moustapha yi moo xam doom yi moo xam set yi ba ci taalibe yu mag yi fu fi waay nekk rek. alxuraan jàng fa am na ñoo xam ne ña ngi ci seen biiri kër di wàccee ay kaamil ndax xam nañ ne Sëñ Tuubaa la ñuy defal te lii mooy lu lu ko gënal ci lees koy defal. taar ba newoon ca Moustapha moo nekk it ci mii nañ ko it ci mii tam Cheikh Moustapha mosu la war telum la wax loola la nar moom lu mu la dig faye ko bar kenn mosu ko gis mu bangam.